asalaamaaleykum mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar leen di wax kuy gan ci page bi te abonné ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ñu koy njëkk a gis wéy leen di like te di commenter te di partager bokk na ci li ngeen ñu mën a soutenir tey nag dañu ñëw ak ci seen rubrique euh, découverte rubrique découverte nag bu ngeen ko déggee euh, bépp jeune talent bépp talent caché boo xamante ne euh, doon nga doomu Sénégal di futbal ci bitim réew wala ci biir réew mi dinañ la indi fii miinal leeg sénégalais yi ñi nga xamante ne xamuñu la tey nag. Euh, rubrique découverte bi dañ koy jagleel benn jour boo xamante ne euh, commencé na def une saison exceptionnelle fële ca euh, Pays-Bas muy wóyo ci turu Amine Sarr mi ngi fubal ci club boobu di Heerenveen foofu lay fubal jamono yi moom nag ah, mën nañoo wax doomu Sénégal ak Suède ndax d'après gëstu yi ñu def xamal nañ ne Amine sar yaayam moom mooy suédoise papaam di sénégalais même si que sax a des Gambiens yuy wax que ne Amine Sarr ah, Gambien la ah, ndaxte man damay faral di def ay recherche bala maa vidéo ci kenn ah bala ma def ci mom vidéo damay def recherche dem Google YouTube et tout mais nak que ma YouTube amna bien benn commentaire bu fa gis ci benn vidéo bo à ne ah, suñu confrère boobu di Mohamed bu sen football TV mon moko def makay saluer sax au passage ndax mom gis nañ ko muy def liggéey bu rafet rafet rafet ah macha allah bi ma duggee gis euh, am ko commentaire muy wuyoo ci turu Bambalo mom néna je vis Amine sar et son père en Suède mais son frère lui il est gambien sa mère est suédoise son père by et gambier et son frère Zimo Lemine euh, Sar. en tout cas euh, commentaire bi la gis qui euh, mom li qui moy de hein, ki nga xamantene moy qui Sar. Euh, frère qui Gambien la il suédoise la Gambien la mu tudd mu qui ci qui en tout cas information Bob laa et puis dafa am jumeau boo xamante ne mi ngi tudd Lamine Sarr et puis kooku tamit gardien de but la également moom tamit ñoom bokkoon même club foofee mal ma jumeau bii nag moom nag yaakaar naa euh, boo demee ci compte Instagram nag nga fekk mu def fa drapeau Gambie ak Sénégal loolu day wane firnde na rek am nañ ay origine gambienne et sénégalaise et également gis naa seen benn photo boo xamante ne ñu ngi yor drapeau euh, Sénégal nii loolu dafay firndeel na rek euh, que ça soit Gambie que ça soit Suède que ça Sénégal yëpp mën nañ faa jouer ah tey gis nañ ko muy jouer ci espoir euh équipe espoir bu seet bi mais loolu téwul ba légui éligible la ngir jouer ci Sénégal wala Gambie euh, tay nak dañu fas yéene ñëw def ci mom découverte wax leen mom moy kan Amin Sar man nak dawla ko découvrir di côté de Malmö fofu la nekkoon en 2020 gagné na fa champion euh, championnat du Suède foofu noonu mais joué wul woon ah, bari won na match yo xamante ne joué wu euh, même si que sax jouer na tolok 27 mars dugal fa deux bi mom nak actuellement gis nañ mu def début de saison bu exceptionnel dooleel foofee ci pays ba ndax jamono mi ngi ci club de r Eindhoven fofu la nek gis na sax sen match contre Vitesse Arnhem mu def euh, triple passe euh, décisif loolu di woné talent bi nek ci mom ah mom nak euh, pour ñi ko xamul mi ngi judd le 11 mars 2001 mi ngi am 21 ans di mesurer 1 mètre 88 don ap attaquant un attaquant très polyvalent sax bo xamantene tay ji dit day mën a il est droit wala est gauche ren du di côté de Eindhoven gis nañ ko ya beaucoup de matchs yo xamantene ci Il est droite bi la koy jouer man bi ko gisee muy joué man ah daf fàttali Sadio Mané ci explosivité bi nga xamante ne am na ko vitesse bi ak surtout qualité technique bi nekk ci moom technicité bi nekk ci moom man daal gam euh, Amine Sarr c'est un talent boo xamante ne tey jii équipe nationale bu Sénégal war naa dox ci moom war a jóg ci moom ndaxte euh, espoir la moom nag 2020 euh, 2021 mi ngi nekkoon foofee ca Malma joué dafa 27 mars dugal 2 bi ah ren jii nag mu dem fële ca R9 foofu nag jamono yi ma ngi fay toj ma fay def bonne saison actuellement ni ndaxte euh, saison bi bi qui commencé ci championnat Pays-Bas une 7 euh, sept matchs euh, def quatre passes décisives dans les double un bi lol di wane talent bi nek ci boy bi potentiel bi nga xamante moy ci au delà sax hein, de qualité de buteur bi qui ci mom c'est un gamin bo xamante passeur le té nu match mel man nako en tout cas équipe nationale du Sénégal warna dox ci ay djégom ndaxte ah man gis na ci qualité yu bari bari bari yo xamante jour moderne daf ko en tout kaa cas loolu moo nekkoon vidéo bi di wax ah, képp ku gën ci page bi te abonné goo ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ñu koy njëkk a gis jaa jëf